أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi àndaat ak yéen ba tey ci kitaab kitaabu tawxid ba tey ñu toll ci buntab fanweer bi buntab wa min annaas man yattaxiz min dunillahi andaadan yuhibbunahum ka hubbillah ñu ngi jël tey benn ci bunti téere bi te mooy wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu wax talaathun man kunna fihi wajada xalaawatu limaani an yakuna allah wa rasuluhu ahaba ilayhi mima siwahuma wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa illa lillah wa an yakraha an yacuuda fi lkufri bacda is anqadahu allahu minhu kama yakrahu an yuqsama fi nnaar mbokk yi xadis bi ñuy jàng bokk na ci xadis yi nekk ci téere bi te di wax ci tomb bi te mooy bëgg gu nu war a bëgg yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam mu ne bu ñëwee ci maanal kalimaat yi wa fi riwaaya laa yajidu ahadun halaawatal imaan am na riwaaya boo xam ne waxul salaasun waaye dana laa yajid bu ñëwee ci xadis bi li muy tekki yonent bi alayhi salaatu wasalaam day joxe misaal mu ne salaasun ñett xanaa ñetti mbir salaasu xisaal raaytay cheikh salaasu xisaal ñetti melokaan lam tuusil baad waaw danga danga eggiwul woon ñetti melokaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy melal ku mu nekk ci yow ay sifaat ay melo mu ne ñetti yooyu mu ne salaasul ñett man kunna fiihi right képp ku mu nekk ci yow wajada di nga am xalaawatal imaan bànneexu ngëm ñetti mbir rek ku mu nekk ci yow di nga am bànneexu ngëm yàlla xalaawa neexitu ngëm yàlla kon looy dégg mooy ngëm yàlla dafa am lu muy sax ngëm yàlla day am cafka ku gëm yàlla te yëgoo bànneex bi am na lu la manqué loolu moo tax nga gis ñu njëkk ña koo ci gis rek da ngay xam ne kii gëm ne yàlla lépp lu muy def da ngay gis ngëm yàlla gi feeñ ci loolu moo tax ngëm yàlla am importance mu ne alxalaawatu huna hiya allati yu'abbaru anha bi zawq mu ne bànneex bi moom la ñuy firee fii loo xam ne nit daf ko ñam après bi mu ko amee bi mu ko ñemee loolu daal di koy feeñal min lazzatil mu benn neexit lazzatul qalb benn neexit ci xolam muy yëg dëgg-dëgg mel ne ku lekk togg gi nga xam ne moom lan la toggal nga ñu togg ko ba mu neex nga koy seex di sentir neexit bi xam ngeen ne bu dee lekk la neex yu lekk ci biir la nekk wala ci gémmiñ la nekk ah ci gémmiñ lekk bu jàllee bu jàllee gémmiñ ba romb pour rek soo nee neex na da ngay nax sa bopp neex yi yëpp a ngi ci làmmiñ bi put bi su fa rombee jeex na am maa ngëm yàlla nag moom dafay sax ci xol bi ndeysaan nga gis nit di ko yëkk yenn saa nga gis benn waaye dégg alxuraan di jooy wala mu daanu wala mu xëm wala mu dee wala mu jaral ko mu def lenn lu tax ngëm yàlla gi moo ko yóbbu foofu mu ne ñett yooyu bu ci njëkk an yakuna allah wa rasulahu ahabu ilayhi mimma siwahuma yàllaa kub yonent gënal la lu dul yàllaa kub yonent su fekkente ne ab julit yàllaa kub yonent gënalu ko yàllaa kub yonent kon kon gëmagul yàlla su fekkee gëm nga yàlla na la yàlla gënal lépp lu mu mën a doon tey rek ngay gis jullit bu ne man gëm naa yàlla te yàlla jaralu ko dara yàlla sax jaralu ko mu yeewu fajar dem jàkk te bu ñu wootee ci leneen mu dem ba pare mu ne man gëm naa yàlla ay na ay na ay na xalaawatul iman ah ay na xisaalul iman bëgg naa yàlla bëgg naa yonent bi yàlla woola wuyuwuloo yonent bi woola wuyuwuloo ba pare yow nga ni man bëgg naa ko lan la lan la borom xam-xam yi wax inna al muhibba liman yuhibbuhu mutia ku bëgg topp li mu bëgg benn waaye dafa bëgg benn jigéen rek muy tukki romb dëkk ba rek daal di wàcc giléem gi di fóon miir bi ñu ne ko lii nag mu ne diw moo fi dëkk ñu ne kookal la mu ne dama ko bëgg allahu akbar xoola bëgg nit ba nga romb fa mu nekk ngay wàcc di fóon miiri dëkk ba kooku bëgg na de kon mbokk yi ku bëgg yàlla dafa am war a feeñ ci yow bëgg yàlla du lu ñuy wax du lu ñuy làmbatu waaye ay jëf la foog mu fees sa xol su feesee sa xol rembet xam nga xol ndab su feesee nu muy def day rembet bu rembetee wala ngaan dugg ci cër yi su ko defee lépp di ko yëg nopp di ko yëg bët di ko yëg bakkan gémmiñ loxo cër yëpp di ko yëg su fekkee yàllaa ngeeg yow bët yi dootuñu xool lu yàlla bëggul nopp dootul déglu lu yàlla bëggul bakkan dootul xeeñcu lu yàlla bëggul gémmiñ kazalika loxo kazalika tànk kazalika awra kazalika biir kazalika ndax lan danaa man damaa bëgg yàlla wallahi ku la gën a bëgg yàlla raw la ku la bëgg gën a bëgg yàlla da lay raw loolu sikk nekk ci ku la bëgg ku la gën a bëgg yàlla dootoo ko dab kon loolu foog mu feeñ ba boobu mooy xisaal beneen xisaal bi ci tegu mandarga bi mooy yonent bi mbokk yi ginnaaw yàlla ku ci tegu amul keneen benn borom xam ma tudd imaam yunus tukulóor la nag mu ne min njiili ma qur'an teeme deres si moore e sappoy nay ah e sappoy ala teeme deres si moore e sappoy sappoy sappoy sappoy sappoy sappoy cent alxuraan ñaata saar la 114 ci pulaar la la sappoy nay ah très bien non gars yi mus nañ 114 saar sappoy nay téeméer mu ne min jim tixéen yii de yoo nee na maa ɓurana yum yoo ceerno maa ɓurana yum maay bàmma mu ne alxuraan 114 saar wër nañ ba sonn gisuñu ne la sa sëriñ gënal sa papa ak sa yaay gisuñu ko ci wala gis nañ ko ci ab aaya bu yàlla ne ne leen ni seeni sërën sëriñ gënal seeni ndey ak seen baay amu ci wa qada rabbuka an laa taabudu illa iya wa bil walidayni ihsana gis nga de wa wasayna al insana bi walidayhi wa abudullah wala tusriku bi shay wa bil walidayni alxuraan loolu moo ci nekk ginnaaw yàlla rek sa ndey ak sa baay xoolal na Sénégal suñu ndey ak suñu baay yi la ilaha illallah dañ leen xool suñu ndey ak suñu baay fan lañ leen teg am na ñoo xam ne waaw sama waa ji war nañu wax ak moom de kon mbokk yi mbokk yi jullit yi ñu bàyyi xel diine du lu ñuy làmb diine diine lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale la diine lu yàlla wàcce la wax ko yàlla ak yonent na la gënal lu dul yàlla ak yonent sahaaba yi de wax dëgg yàlla wane woon nañ ko yàlla moo leen gënaloon yonent bi moo ci tegu amul keneen moo tax bàyyi nañ seeni kër bàyyi seeni ndey bàyyi seeni bàyyi nangu ñu rey leen ñu nangu tumaranke ñu nangu xiif ñu nangu mar saaba yi loo xalaat ci àdduna daj nañ ñi bàyyi nañ seeni kër gàddaay nañ ñi bàyyi nañ seeni soxna ñi bàyyi nañ seeni doom ñi bàyyi nañ tool ay tool ay hectare te bu ngeen demee Madina wala bu ngeen demee Màkk subhanallah ba ngeen dugg ci toolu tàndarma yi ngeen xam ne lii du lu ndaw gis ku ko bàyyi xoola soxoy bu ruumi li mu bàyyi ci alal yàlla moo ñu ko wax ci alxuraan wa min annaas man yasri nafsahu ibtigaa mardatillah am na koo xam dafa jaay boppam ngir yàlla kontaan ci moom kon kay ñooñu bu ñu nee ñoom yàlla ak yonent moo leen gënal loolu lu dëggu la noonu yàlla ak yonent gënal lu dul yàlla ak yonent ñaareel an yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah sooy bëgg nit doo ko bëgg lu dul yàllaa tax allahu akbar ndeysaan hadis yi dina yomb liir yomb jàng waaye xam nga fan la problème bi nekk jëfe bi nga bëgg rek dara taxul nga bëgg nit lan moo tax nga bëgg ko ngir yàlla ak jafe tey lépp ci ñun suñuy bëgg dafa am na lu làqatu ci ginnaaw kii foog ma bëgg ko ndax bi ma sonnee ndax bi ma feebaree ndax bi may ut liggéey ndax bi may jàng ndax ndax ndax ndax ndax kon yow amoo amoo tiyaaba ci li ngay def parce que bi nga ko bëggee yàlla taxul koy bëgg na yàlla tax sooy bañ na yàlla tax an yuhiba na bëgg almar u nit laa yuhibuhu du ko bëgg illaa lillah loolu rek mooy dama bëgg yonent alayhi salaatu salaam jàngale na hadis bi ki doon ziyaare ji mbokkam ci naaj bu tàng bi dox ay kilomètre yàlla yónni benn malaaka malaaka bi nekk nit mu koj waa ji ci àll bi yow foo jëm foo jëm foo jëm mu ne ko lan la mu ne ko naaj bu tàng bi fan nga jëm mu ne ko damay ziyaare ji sama benn mbokk mu ne waaw naaj bu tàng bi xanaa da ngeen a may intérêt mu ne déedéet xanaa da ngeen a bokk association déedéet xanaa da ngeen a bokk mbooloo déedéet xanaa da ngeen am nangam mu ne lu waa ji wax rek mu ne ko déedéet waaw kon lu tax nga jóg mu ne ko ngir yàlla yàlla rek moo tax ngay dem mu ne yàlla rek mu ne ko man malaayika la yàlla moo ma yónni waaye seedeel fi nga tàmbalee ba ba ngay egg yépp yàlla jéggal na la say bakkaar wala ziyaar yooyu ñun duñ ziyaarante xoolal suñu këri nu mu jegante amoon naa benn oustaz damay jékki-jékki rek ñu ne ma wuyul ma wàcc gis ko ci buntu kër gi mu taxaw mu ne ma asalaamaaleykum wa rahmatullah ma ne ko waaleykum oustaz egsi mu daal di egsi toog muy ni ko ndox mu naan mu ne maa ngi dem de ma ne ko ah déedéet mu ne ma dama la ziar si woon rek dama bëgg xam naa ne boo ma gisee di nga kontaan soo kontaanee rek ma am tiyaaba yàlla bind ma tiyaaba ma ñibbi est-ce que kontaanoo ma ne ko wallaahi kontaan naa mais maa ngi dem waaw xoolal ziara bi ay deux minutes mais tiyaaba lay ut billaahi wallahi taala même julli fajar sax daka daan def julli fajar xoolal heure boobu mu ñëw ñëw ba ci buntu kër gi ziara daal dem ñibbi kon waruñu gàttañu ndax am na yiwu yàlla yoo xam ne xamoo ne yàlla ci lan la la koy bindalee am na bàkkaar yoo xam ne xamoo yàlla ci lan la la koy baale kon su ñuy bëgg nanu bëgg ngir yàlla bu ñu bëgg ngir maak yi ñoo bokk nangam tey gis nga nit ñi li ma doon wax li may wax lu bare bari di nga gis ay nit yu bokk jàkk ci duñ bëggante maak yi ñu bokk jàkk ji duñ bëggante waaye ñu daje suñu kër sëriñ rek fekk xamante woon woon xamu woon ne waa waa ji ñoo bokk sëriñ ñu daje rek ba gis ko ma ne ko ma kiddiw mu ne man la gay mu ne ko loolu fii mu ne ma ah yow kii depuis ma rek nga gis bu song waaj kor yow di léegi bëgg naa la léegi bëgg naa la démb nag bi ngeen di daje ci néegu yàlla bi kon ay mbir la yu sew yoo xam ne nañ ci bàyyi xel bu baax a baax nanay bëgg ngir yàlla ku ñuy bëgg rek na fekk lenn taxul lu dul yàlla subhanahu wa taala ñetteel fa an yakraha na bañ na sib an yauda fi l kufr baada is anqazahu llahu minhu mbokk yi ku mu mën a doon ci bañal dellu ci kéefir léeg-léeg loolu dina neex a déglu dina neex a dégg léegi yenn saa yi nga gis soo waxee xadis bi kenn kan mooy kan mooy nekk jullit ba ci àngaram nekk yéeféer du jeex du jeex ay nit ñoo am na jullit lañu am na ñu murtat ñu murtat dem nekk ay yéeféer waxuma la sax ñu murtat waaye fii yonent bi waxul waa ji dafay murtat waaye dane na bañ a dellu ci kufru ginnaaw ba ko ci yàlla musalee ñaata ci ñun tey bii nga gis ñuy def ay jëfu kufr jëf yoo xam ne boo ko defee rek yow yéeféer la te yàlla musaloon na la ci bu yàgg mais tey nattu jàpp la da nga gis koo xam ne misaal dund na sunnaayaat mu feebar rek dem hôpital affaire bi kiiwul def analyse suñu dara nanga mag naa ngi si rek nga dégg seen waa kër ne du da ngaa dëgër bopp di nga dee di ngeen di bañ a naan di bañ a takk demal nga dégg ne yóbbu leen ma gaa yi dem defal ko ngan di xaaw ak pettaaw ak gàllaaj ak mu commencé takk di ko nëbb sol ay loxo yi gudd di nëbb affaire yi loolu musiba la julli du takk gàllaaj gàllaaj kufru la wala man àllaqata mi man ah man àllaqata mi man fala atamma allahu la yéen tamit ne takk gàllaaj yàlla bu yàlla matal say affaire yàlla bu la yàlla dañ di la teg ci ay tiis ay natt ay tiitaange baaxul te li gën a graaw mooy ku takk gàllaaj xelam di dem ci yàlla ah gàllankoor de xoolal mbër yi li ñuy financé ci gàllaaj kan ci mbër yi ngeen mës a gis bëre jot rek mu ne dama duma takk gàllaaj damay dem rek ma ñaan yàlla julli ñaar rakk ma ñaan yàlla su su lu ko ay mbokkam di wax yi de dëkk bi yëpp ñu naan kii dafa dof waa kii ñaan yàlla ñu ne dof la ki dem ci nit ci moom ndimbal ñu ne kii moo normal est-ce que loolu pas-pas la est-ce que loolu ngëm la est-ce que loolu bëgg yàlla la te ñun ñëpp noonu lan melan benn waaye dafa ñëw fekk benn borom xam ba mu ne ko dund nga ñaanal ma damay tukki waa ji ne tàllal leen loxo yi xulaandu leen falak xulaandu nas ayatul kursi mu ne ko lii rek waaye nag ah bis bu nekk nit ñi di ko wala waa ji mer ay ne ko man de lii laa mën ko gën dem mu leer la ne du yem ci lii jullit boo xam ne ayatul kursi doyu ko xulandore falak doyu ko xulandore bi naas doyu ko te yeneen bi saa sallam lan la wax ci xulandore falak ak xulandore bi naas lan la leen borom xam-xam yi soo tuddee maa wasa tey ñaari musluwaay yi yonent bi ne ku julli timis jàng ko ñett ku julli suba jàng ko ñett kafataa ñu doy la wala loolu yonent bi wax mais parce que pas-pas yi la kon suñuy bëgg nañu bëgg ngir yàlla bu ñuy bañ nañ bañ ngir yàlla nañu bañ a dellu ci kufru ginnaaw bañ ci yàlla musee mooy nga jëf-jëf yi baada is anqazahu llahu minhu kama yakra ay yuqsa fi naar kan moo nangu tey ñu dugal ko ci safara kan ci ñun kan ci ñun moo bëgg a toog ci furna safara kan ci ñun moo bëgg ñu jël sondel waxuma sax safara si waaye ñu toqal la sondel bi rek la sondel bi jeex kan ci ñun bëgg kon bañal dellu ci kéeféer comme ni la ni nga bañee ku la sànni ci safara ixwat al imaan qaala al imaamu suyuti mu ne wajada xalaawat alimaanu fiihi istiaara taxliiliya shibhu raxba almumin fi limaani bi cheyin xull wa asbata lahu laazim zalika chey wa adaafahu ilayhi alimaam suyuti bu muy firi xadis bi bokk na ci li mu wax mu ne yëg-yëg bi jullit bi di yëg bànneexu ngëm fii mu ne dañ ko àpp ngir mu mun a sentir bu baax di janeer bu baax ah bëgg-bëgg ngëm ngëm-ngëm gi ngir bëgg-bëgg ngëm jullit bi di feeñ ci ngëmam muy yëg bànneex di ko sentir nee na lépp loo xam ne nag dafay waral day tax sa ngëm googu sax ba nga sentir ngëm yàlla bëgg yàlla loolu war naa feeñ ci yow imam Nawawi mu ne xalaawatul iman mu ne lan istidlal at taat wa taxamulul masaqaat allahu akbar ah loolu mooy lan mooy toroxlul topp yàlla boo bëggee am bànneexu ngëm yàlla sooy jaamu yàlla da ngay toroxlu jaamu yàlla goo mën a def da ngay toroxlu imaginer la am na ñoo xam ne bu ñuy julli da ngay xam ne ñiy julli wuñ dañuy fo seen ruko yi yenn saa nga gis kuy julli war a kàbbar dina la yëkkati sa loxo yi ba mu tolloog say mbagg wala ba mu tolloog say dem nga gis ku ne waaw loxo yi sax du nii lay bu concentré wu su rukkoo jotee mu ne nii mu leer na kii à la forme la koy def quoi nit ñi julli rek mu jóg su si jot jotee nii lay def bu nit ñi di taawee mu ne nii kooku af muy jëlee jëm yàlla kooku est-ce que toroxlu na am na ci ñoo xam ne du ñu ñaan nit ñoo xam du ñu ñaan xam nga dañ ne addu'a wala ibaada am na nit ñoo xam ne du ñu ñaan yàlla mukk mukk ci àdduna loolu bokk ci ma koy doyee ñoo xam boo leen ne du ngeen ñaan ñu ne luñ koy doyee man am naa lépp du may doyee ñaan yàlla loolu nag mooy musiba jaamu yàlla bëgg yàlla mooy nga toroxlu coo koy topp waaye wata xamulul masa foog nga yenu coono yi jaamu yàlla coono la de foog nga nangu koo yenu ku nanguwul toroxlul yàlla nanguwoo yenu coono yi nekk ci jaamu yàlla wa isaar zalika ala aradi dunya nga gënal jaamu yàlla ci bëgg-bëggi àdduna bànneexi àdduna xoolal tey nit ñi ni ñuy sonne ci àdduna ñëpp daw kër oto ay jabar ay doom ay compte banque ay kër yu dul jeex ay immeuble ay nangam kërti kërti di daw rek après koy mujjee moom dee dem yow man xiyaam ci ay loxoy kese yóbboo ci yàlla dara loolu musiba la waaw di daw rek pour àdduna benn boromoon doona ngeen dajalay jàll jalla jalaaluhu ñëw jël leen ñu yóbbu leen jàll leen ñëw tas jal yi ngeen jaloon jaale leen waaw rek leen saa yi nit dajale alal ba yaakaar ne alal ji sax dina tax du dee yaxsabu anna maalahu axlada kon nit na gënal bëgg yàlla bëgg yonent ci lan ala aaradi dunia ci poñetu àdduna ci bagage yi àdduna wa mahabbatul abdulillah bi fili taat wa tarkil muxaalafaatihi mbokk yi mahabatul abd lillah bëgg gi jaam bi di bëgg yàlla ci li muy fay mu ne bi fili taatihi ci ci topp gi muy topp yàlla dinañ xam ne bëgg na yàlla ah kii dem stade bis bu nekk ak kii dem jàkk bis bu nekk buñ la waxoon ñaar ñi ku bëgg yàlla koy joxoñ kii dem jàkk ba ñëpp xàmme ko ak ki support ci équipe bi wala xoolal démb dama toog tey démb démb ay booru 9 heures sama portable sonné ma jël sama benn ndeysaan yaay yu baax ne ma man de dama war a dem dëkk benn dëkk samay mbokk daal ñoom faa gaañu ñetti xale yu góor lañ dañoo demoon làmb ji di ñibbi nekk ci scooter oto fël leen ñoom ñetti ñoom ñu dee. ñett ñëpp a dee stade lañ jóge làmb ji supporter ji woon mbër ñuy ñibbi oto fil leen ñett ñëpp a dee te yonent bi ne yub askullu abdin ala ma maata ku nekk ci li nga dee lan lay dekki ñooñu doy bu ñu leen dekk la yow yaa ni leen ci lu ngeen dee ñu ne dañoo demoon stade seen làmb supporter ji mbër moo tax mbokk yi lii mooy lii moo lay waral fooy dem xool ko fooy dugg xool ko looy def xool ko parce que ñooñu keroog bi ñuy dem bu leen ne woon da ngeen di dee ndax danañ dem waaw moom lañ def fële ci kaw mais kii sax moom am na changement parce que dañ ko fekk muy jaay di mooy ki doon jaay foofu da doon jënd supporter bu doon jënd la gis nga xam nga caaxaan dafa baaxul am naa kii doon di waaw ci stade stade bi dañ doon xeex léegi bi ñuy xeex oto bi indi woon waa Pikine am ku ci sànni xeer bi chauffeur bi toog su fekk chauffeur baa ngi dawal oto bi xeer bi bu mu duggee toj pare-brise bi dal ci chauffeur bi chauffeur bi xamatul lu muy def oto bi yéeg ci kaw territoire bi ñi mu fa fekk yëpp mu rajaxe leen ba kaale fam làmp bi ñi mu fa fekk am ñu mu ci rey am ñu mu gaañ ki dee nag lañ bind fële turam ci stade bi tuddee ko tribune bu am naaj bi nga Sénégal yàlla dëgg rek lay def da nga doon fo nga dee ñu tuddee la fo yàlla du juum billaahi wallahi taala mbir yu baree bari ñun dañ koy def mais duñ bàyyi xel yàlla loolu la ñuy fay da nga doon caaxaan nga dee ñu jël place caaxaankat caaxaankaay tuddee leen ko tuddee hmm, tuddee la ko ah waaw waaw parce que caaxaankat nga woon est-ce que di ngeen gis ñu tuddee Cheikh Ahmad Bamba Esat ah est-ce que dañu tuddee Alaaji Malick Esat est-ce que dañu tuddee Aboubacar Esat Omar nag Ousmane nag lu tax suñ ko defoon yow mi nga jóg kàddu sayet da na ngeen dof wala waaye ñeneen ak ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen ñi ngeen xam ne xam ngeen leen buñ leen ko tuddee woon doo ko yëgal sa yaram parce que da ngaa xam ne ñii loolu lañ woon kamaatu diinu tuddaanu li nga leble loolu nañ lay fay waaw mbir yomb de ku bëgg nekk ci lu baax ku bëgg dee ci lu baax da nga ciy nekk boo ci nekkee di dee dina la ci fekk fépp foo bëggul dee daw bul fa dem mooy tul dee day béete sikki nekku ci yàlla li mu wax mooy dëgg amul kenn ku dee di ñëw ci yow loolu la lay bett kan la dee di ñëw ci moom naan ko maa ngi ñëw mu taxaw mu ngay daw rek ba dee fekk la foofu yóbbu la kon xamuñu fu ñuy deewee xamuñu kañ la ñuy dee xamuñu nu ñuy dee kon nan góorgóor nekk ci lu baax ba saa yuñ ci dee fekkee ñu sant suñu borom subhanahu wa taala kon bëgg yàlla mooy nga jëf ay santaaneem waaye wa tark muxaalafat yi nga bàyyi wuuteeg yàlla tey réew mi xam ngeen ne yéen ñii yéen a ma gën a xam su ngeen di waxal yàlla xam ngeen ne réew mi ci caaxaan kese la nekk wala émission bi ñu doon teg ba gaa yi Sénéral di ci wax ne nañ koy interdit Sen TV émission bu xaram boo xam ne ci tubaab yi ñu ngi ko jëlee LTL 9 LTL 9 lañ jëlee émission bi ci tubaab yi lu copier ko teg teg indi xam nga lan mooy changement bi ñee tubaab la ñuy wax ñii olof ak tur bi loolu lañ changé mais ni émission boobu araamee ñu indi ko Sénégal waaye bu ko gouvernement bi interdit loolu nit ñi dañuy bàyyi mu def Sénégal la mbon mbon mbon dugg sénégalais yi léegi la mbon dugg ba lu bon safatu lañ kenn dootu ci mel waaw kenn dootu ci waxati parce que lu tax mbon moo ñu dugg benn borom koo xam day mi- day misaal yàgg ci mbon nu muy def nit mu ne comme boo duggee ci biir duus boo ubbee bunt bi dina am lu la xeeñ wala lu la xasaw nga dugg waaye dara dootul xasawa ci ba ba ngay génn dara du la xasaw noonu la mbon mel gis nga mbon boo ci nekkee dara dootul la safati moo tax gis ngeen ñu bon ñi yooyu yaay wax ne ñii dañoo bon waaye ñoom xam nga lu ñuy wax moom ñun dañoo avancé bàyyi leen ñi ñuy wax ñoom bu njëg mu ne dañoo bon dañuy rek ci jàmm lañ nekk lu dul ku ci yàlla nar a génne ci lu bon ku ci yàlla nar a baaxe mooy tiit di tëdd guddi di tiit di xam ne man ci lu bon laa nekk ci lii may lekk wala lii may liggéey wala lii may def dara yal na ma ci yàlla génne di wut ay bunt yu mu ci génnee yal na yàlla sàmm mbokk yi mu ne wa kazalika ar rasul naka noonu boo bëggee yonent da ngay roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam moytu lim la tere qaala yahya ibnu muaz xaqiqatu lxub fi llah an laa yaziidu an laa yaziida bil birri wala yanqusa bil jafa yahya ibnu muaz nee na bu fekkee dëgg-dëgg dañ lay jàngal lan mooy dëgg-dëgg bëgg yàlla xaqiqatul hubb fillah dëgg-dëgg ngay sentir bëgg yàlla mooy mbaax gi la yàlla sant bul ci yokk dara yemal ci loolu rek yàlla li ñu sant buñ ci yemee rek baax waaye wala yanqusa bil jafa bul ko ngottal tamit ndax wow koŋŋ moo tax saxaaba bu ñëwee ci yonent ne ko lan mooy diine yonent bi ne ko mooy lan mooy islaam moom ko islaam mu ne ko araayta ida xalaltu lxalaala wa xaramtu lxaraam walam azid ala zalika shay a doxalul janna qaala naam waa ji daal ne maa ngi lay giñal ci yow yàlla mi la yónni du ma ci yokku lenn du ma ci wàññi lenn day mu wane ginnaaw yonent bi ne wallahi bu dëggoo dugg aljanna xoolal waa ji li mu wax lu tuuti la iza xalaltu lxalaala su ma daganalee li dagan ma yem ci wa xaramtu lxaraama ma bàyyi li araam ñaari baat la wax de waaye ñaari baat yooyu ñoo garaaw islam bi yëpp la ëmb mu ne duma ci yokk dara nag te wax wow yu dëgër wax yu dëgër la daan wax ak yoon parce que arabe la ci àll ba la jógee ñoom xamuñu tricher wax bu baat yu ko koŋ la daan wax ak yonante bi yow ndax yàllaa la yónni mu ne ko yàllaa ma yónni mu ne ndax dëgg la yàllaa la yónni mu ne ko waaw mu ne ko laaj ji laa lay laaj su ma daganalee li yàlla daganal ma yem ci ma araamal li yàlla araamal ma yem ci ndax dinaa dugg àjjana yoon ne ko waaw mu ne du ma ci yokk dara de du ma ci yokk dara waaye xoolal nit daganal lu yàlla daganal foo yem lan ngay bàyyi nga araamal li yàlla araamal lan ngay def ñaar yi bu ci nit defoon rek texe ñaari mbir yi kese loolu moo nu sonal ñàkk a mën a def bee ñàkk a mën a bàyyi bii moo nu sonal waaye bu fekkoonte ne yem nañ ci li yàlla daganal kese bàyyi li yàlla araamal wallahi danañ taxe danañ dugg àjjana mbokk jullit yi mu ne borom téere bi ñëw na léegi ci tafsir hadis bi ñu doon jàng an yakuna allah wa rasuluhu ahaba ilay mimma siwahuma yaani bisawi ma yuhibuhu l insan لتبعه كمحبة الولد والمال والزوج ونحوها فتكون أحب هنا على بابها mu ne wax ji mu wax ne doomu aadama na ko yàlla ak yonent gënal lu dul yàlla ak yonent mu ne ci toll li mu ci namm mooy ci tollale ko mooy na wone maa yuhibbul insaan bi tabihi li doomu aadama di bëgg ci natiiram kama habbatil walad loolu loolu nature bëgg doom wal maal bëgg alal wa zawju bëgg soxna ah ak yeneen ak nabanaax yu ak yeneen ak yeneen bëgg oto bëgg kër bëgg bëgg bëgg bëgg mu ne fa takunu ahabba huna ala baabi waaye ahabba la wax ahabba na nga fexe yàlla ak yonent nga gën a bëgg ak soxna si ak doom ji ak ak ak ak soo jàppoon war a dem fajar julli ji jàkk wala nga dégg asalaatu xayru minal bi nga ne bëri ci kaw lal bëgg a jóg soxna si teg la loxo nga tëddaat ba ina ba midi jot yàlla ak soxna si koo gën a bëgg ah soxna si nga gën a bëgg leer na nga teg baraada nga dégg ñu nodd jàkka ci sisbaar allahu akbar allahu akbar nga continuer ataaya ji yàlla ak ataaya ji loo gën a bëgg ak yeneen ak yeneen jàngeen histoire Souley Souleymane Souleymane ñaata fas la rey ndax fas yi tardé ko julli tàkkusaan mu jàpp yëpp rey leen cor leen ba ñu dee yëpp dagg tànk yeeg baat yi ndax lan tàkkusaan jot na Souleymane taxaw di seetaan fas yi ni ñu leen di ni ñu leen di tawalee ni ñuy maajee xam nga fas dafa rafet Souleymane taxaw taxaw di xool di xool ndekki waxtu. jot na yëgu ci dara jékki-jékki rek ñu ne ko Souleymane waxtu bi passé na bu yàgg mu ne la indi leen fas yi yëpp mu jàpp rey yaa ngeen histoire Cheikh Ahmad Bamba bi ñu ciy nettali mu génn di julli ji fekk gars yi di defar sàkket gars yaa ngi koy nettali mu dem julli ñëwaat fekk gars yi julli juñ di defar sàkket bi mu ne ndax julli ngeen ñu ne déedéet mu ne bi waxtu julli jotee fan ngeen yemoon ci sàkket bi gars yi ne ko fii mu ne diri leen lépp ba fi ngeen yem léegi di xoolal ñu mel noonu rek ak tey ñun suñu dëkk bi li ñuy woote wu ci ñoom ak ñooñu li ñu gëmee woon yàlla li ñu bëggee woon yàlla nga gis tey benn waay boo xam ne sànq damay jàngal xale yi di leen ko wax li gën a ruslu de Sénégal da ngay gis ko organiser soirée nekk biir grand théâtre naan ana waa kër Sëñ Touba gars yi naan ooy ci biir grand théâtre ana waa kër Alaaji Malick ñu naan allahu akbar ana waa kër diw sëriñ boo xam ne la ilaha illallah diine rek lañ ko xamee waa këram ñu leen di laajte biir grand théâtre ak biir Sorano ak biir stade ak biir biir soirée ba pare ay nit di yuuxu de ku ànd ak diw yëkkati sa loxo nga gis ñu yëkkati est-ce que ku ànd ak Cheikh Ahmad Bamba grand théâtre lañ la war a fekk.
وفاة أوقات wax waaw. ah كعابد أصنام بدون مراء waaw. par kalima. wa abidu وف- وفاة أوقات ku képp ku faat waxtu.
لخدمة شيخه ngir liggéeyal sa sëriñ.
كعابد أصنام mu ngi mel ne jaamukatab xërëm.
بدون مراء lu amul sikki sàkk amul leneen. Alaaji Maalik moom la. kon te li doy waar Sénégal mooy dëgg yàlla dañoo nekk ci ay bànneex ba pare nekk ci lu ñu neex di tiitaroo ay nit fekk c'est pas ça wala nekk seen ginnaaw làqatu fekk ñooñu xam nañ ne bu ñu doon dundee dinañ leen jëgal fi jóge fi dinañ leen jóge fi jóge fi bokkoo fi jóge fi il faut ñu bàyyi xel suñu bopp. jullit du ndax boppam. Mhm, jërëjëf. Mhm. jërëjëf. mu ngoog kon mu ngoog mbir yaa ngoog eh ku jullit daal na bëgg yàlla jàpp ne jaamu yàlla moom kenn mënu la ko defal bëggal yàlla bëggal yonent na la yàlla ak yonent gënal lu dul loolu na la gënal doom na la gënal jabar na la gënal alal na la gënal na la gënal lu mu mën a doon ba gënal bëgg loolu imam buñ naan xataabi nee na wal muraadu bil mahabba huna xubbul ixtiyaar laa xubbu tabi kazalika qaal wa amma mahabbatu a shirkiya la def de allati qad tamma ah taqaddama bayaanuha du loolu mu ne imam xataabi mu ne li ñu namm fal muraadu bil mahabba huna mu ne li ñu wax ci sopp ci bëgg fii mooy xubbul ixtiyaar bëgg goo xam ne yow yaa ko tànn yaay tànn parce que tànn la bu ñu leen di loon tey ñaari soxna nga amagoo soxna ñu ngi nga ni dama bëgg soxna benn góor kilifa gu mag daal lay di ñaari doomam yu jigéen ne la bismillah tànnal ñaar ñi kenn nooy def da ngay xool ban tàmm ngay tànn tànn ngumba ndax da ngay gëmm naan nii da ngay gëmm di làmbatu ñoom ñaar kan la da ngay xulli sa bët yi la yàlla may yë yéen saa yi sax bu ko laajee nga ni jóg leen taxaw waaw yenn saa yi bu la ko laajee nga wax la jóg leen taxaw ñu jóg taxaw nga dem leen ba nee ñëwaat ah gisul leen fi waa yoo xam ne day jékki-jékki dégg naa kilifa diine goo xam ne day jékki-jékki dégg naa ana sama soxna yi ñu ne ñu mu ne jóg leen taxaw waaye gars yi gis leen jóg leen taxaw xool loolu lu musiba boobu inna lillahi wa inna ilayhi yàlla na yàlla jéggal kon hubbul ixtiyaar tànn la da ngay tànn maa yàllaa ngi nii njaboot gaa ngi nii doom yaa ngi nii alal a ngi nii lépp a ngi nii allahu akbar soxna yonente bi alayhi salatu wasalaam ci tabaski wala korite ba ñu laajee yonente bi lu yonente bi amul ñu sonal yonente bi yonente bi gedd jàkka ji dem ay alquran daal di wàcc yaa nisa annabi in kunna turidna alxayata dunia wa zinataha fata alayna umattiukunna wa usarrihukunna sarahan جميلا wa in kunna turidna allah wa rasulahu wa daar al axira ah bu fekkente ne yéen soxna yonent bi aduna rek rek rek moo tax ngeen bëgg léttu salu diw solay daal la cap rose à lèvres capax capaxi yooyu ngeen bëgg teg seeni kol xàppati xóotal yooyu ngeen bëgg kaay leen yonent bi defal leen loolu fase leen ngeen dem ñibbi seeni kër bàyyi waaye bu fekkee yàlla ngeen bëgg ak yonent ak alaaxira ëllëg ñu ne ñun tànn nañ yàlla tànn yonent bi tànn alaaxira ndeysaan mu nga kon il faut nga tànn ixtiyaar la yàlla da leen tegal ñaar ñu tànn kon nañu góorgóorlu sunu bopp saa yu yàlla soxlaatee yonent bi soxla ku yi fax jëm sunu bakkan soxla sunuy jabar soxna wala sunuy doom soxla nañu tànn li yàlla wax ak yonent gis nga tey lu bëri ci ñun jabar ak doom ak mbokk ak xarit ak nangam nangam wala ay dëkkandoo wala dëkk bi wala xeet wi moo tax doo dem ay gis koo xam ne dafa bëgg jaamu yàlla ñu def loo ko loo xam ne wax dëgg yàlla benn bis bëggu ko woon def mais da koy def ndax nit ñi ñëw rek naa la waaw waaw yow nag wax dëgg yàlla yow nag da ngaa bàyyi say mbokk da ngaa dëgër bopp xam nga yow ah bi nga commencé jàng sa téere yu weex yi ba léegi kenn mënut laa wax loo dégg téere yu weex ak téere yu waaw bi nga commencé dem ci jàkka jooju ba léegi bi nga commencé ba léegi ah yow képp ah nga commencé di wàcc ndeysaan ku bàyyi say mbokk walla ku bàyyi yàlla jàpp say mbokk bisa ngi ñëw yàlla dina la bàyyiloo say mbokk nga dem ci moom déggu leen wax bi képp koo xam ne dangaa bàyyi yàlla ndax say mbokk ndax sa jabar ndax sa doom ndax ndax ndax ndax ndax tax nga bàyyi yàlla bisa ngi ñëw ñooñu nga jàppoon ñëpp di nga leen bàyyi fekk yàlla boobu nag moom mu garaaw nag bu la yàlla taxaloo ci kanam ne la lu tax ma woowoon la ñeewoo la nga dem ci ñoom wuyu leen man nga ba ma amul réponse ah mu ngoog mu ngoog mu ngoog amul réponse allahu akbar yàlla yàlla jàppale leen yàlla taxaw mbokk yi nañu góorgóorlu suñu bopp ñëw na ci xadis ahabullaha bi kulli qulubikum bëgg leen yàlla lépp ci seen xol ahabullaha bëgg leen yàlla bi kulli qulubikum ci seen biir xol yëpp bu leen desal dara bu leen desal dara xol bi na fees bëgg yàlla tabaraka wa taala bul desal dara dara dara dara dara dara ah ahabullaha bëgg leen yàlla bi kulli qulubikum ci seen xol yépp bul desal dara desal gi ñuy desal yenn saa yi espace ci suñu xol yi gi ñu bëgg dara loolu moo nuy sonal su bëgg sa soxna bëgg sa doom bëgg yonent yàlla ibrahim xam ngeen lu tax yàlla reyloo ko woon ismail ibrahima dafa taxaw ci àll bi di xool bu jàng rek mu gis benn picc di sexal doom yi xam nga picc buy sexal doom bi nu muy def day ŋaang sex begu doom ji di ci sol lekk noonu la picc di sexale rek ibrahima xelam daan dem ci ismail ndeysaan rek mu am place su mbëggeel yàlla daal di koy woo di ko ibrahima rayal sa doom waaw mu daal di xëy woo doom ji ne ko yaa bunayya inni ara fil manaami anni asbahuka fanzur maza tara xoola doom ji lan la tontu yaa abati if'al maa tu'mar satajiduni insha allah mu wax ko doom ji doom ji nangu mu dem wax ko jabar ji jabar ji nangu moom nangu na yàlla diñu nettali fa lamma tallahu lil jabin ba mu demee ba tëral doom ji ndeysaan ci jóbi di ko reen yàlla daal di koy woo yaa ibrahim qad sadaqta ruya ibrahima dëggal nga gént ga tey dinaa la ko jotal bi zabhin azim ci kuy mag looy reen di leneen place am waaye da nga yëg ne inna kazalika bu yàlla ne woon ibrahima yow rek laay fay waaye xoolal yàlla moo baax mu ne ibrahima mi lii ma la fay du ci yow rek laa la ko yemal de képp ku ma bëgg gën maa bëgg ci leneen lu mu mën a doon nii ma la fay ibrahima noonu laa koy fayee inna kazalika najzil muhsinin ñaata aaya la ci alxuraan yàlla yonent bu mu wax ba fay ko rek bu aaya di jeex nee na inna ni ma fayee yonent bi loolu laay fayee keneen moo xam mu dëkk Sénégal moo xam mu dëkk Gambie moo xam mu dëkk Mali moo xam mu ñuul moo xam mu weex moo xam mu xam moo xam mu ñàkk moo tax mu wér képp ku bàyyi leneen jàpp yàlla ni yàlla fayee woon gaa yi faye la noonu te loolu lu dëggu la jàng leen histoire gaa yu baax it yàlla da leen fay ba nit ñi bëgg ñee leen bëgg a mel ni ñoom kon nag mbir yi du lu ndaw leen góorgóorlu suñu bopp yenn saa yi di gën a doy waar ci doomu aadama yi nga wax nit benn waaye ne la non ñooy kenn mënu mel ne ñoom nag dëgg dëgg xam nga yéen nag da ngeen sonal nit ñi kenn mënu jéemal ah jéemal gaa yi dañ doon bàyyi nelaw seeni lal di di jaamu yàlla gaa yi dañ doon woor gaa yi dañ doon jàng alxuraan jéemal jéemal nga seet ndax doo dem bi gaa yi gisee ñi dem Europe am nañu xaalis gaa yi jéem nañu dem Europe wala demuñu ah jéem nañ de ñii la ngay avion tey dama koy wax xale ma leen am na ku langoon avion dem ba yegg gaa yi dellu si yéen a ngi fàttaliku loolu kii langoon avion ñii moom daal di yëg ci gaal yi allahu akbar ah dafa delluwaat dañ ko dellu si mu delluwaat ruubi képp ko mu dee waaye fi mu duggoon la dugaat xoolal kooku rek ngir bëgg alal gars yi sax bañ nañ ko ba dañu yor slogan barça wala barça ñenn ñi ne alal ju bari wala bàmmeel bu sori ñooñu dogu nañ de wala dogu nañ wala doguñ ngir am alal yow tee ngaa dogu ngir nga am yàlla est ce que dogu nañ ngir am yàlla loolu mooy wax bi ñun dañu ne dañoo bëgg yàlla dañuy nelaw di nelaw di nelaw ba ndëgg asalaatu xayru minan nawm nga doog a jóg bërti bërti dem bërti dem jàkk je ah waaw damay damay ñoo ñooy bëgg yàlla ñoo ñooy ñu bëgg yàlla ñeneen ñi kay moom duñu yeew la soo bëgg ñu ñu bëgg laa ñu bëgg ne dañoo bëgg yàlla te riir waaye bu fajar laa wax daal yeew dem jàkka ja ñëwaat nag di wane ne man bëgg naa yàlla nag dem sa sama sàmm premier di wane ne man yeewu naa fa fajar ku bëgg yàlla du yeewu fajar ku bëgg yàlla xaaju guddi la yeewu kaanu xalilan min al-layli maa yahjaun allazina yabituuna li rabbihim yàlla dana yabituun yabaat yabituun lu muy tekk dañoo fanaan yàlla waxul dañoo tëdd ba cinq heures dañuy ñii dañoo fanaan ah yaa ayyuhal muzammil qumil layla illa qalil gis nga nisfahu aw inqus minhu aw zid alayhi wa rattilil quran inna sanulqi alayka qawlan ah affaire yi yombul yàlla ko yàlla yombal ci yombul de affaire bi du lu ndaw loolu moo tax boo ci yàggee da ngay am mahabba soo amee mahabba nga am xalaawa soo amee xalaawa nga am yaqiin looy nag léegi bokk nga nag am nga yaqiin am nga kóolute jur law ndawaan yi dootu la dérange yi ngeen gis ni dootu la dérange ay mas ngay gis ku ne seetaani mas loolu nañ jala wàcc ndax làmb ji tey yooyu noonu di la tardeel ah subhanallah yal nañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp yal nañ yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko fa min alaamati mahabbatillahi wa rasuli bokk na ci màndarga yi wane ne bëgg yàlla ak yonent an yuhibba maa yuhibbuhu llah wa yakrahu maa yakrahu llah mbokk yi bokk na ci liy wane ne man bëgg naa yàlla wala bëgg naa yonent mooy màndarga yi koy wane mooy nga bëgg li yàlla bëgg yal na yàlla fay la yiw àdduna ak àllaaxira yal na yàlla sàmmal la boppam barakallahu fik mbokk yi bokk na ci liy wane ne màndarga yi wane ne bëgg nga yàlla nga bëgg li yàlla bëgg nga bañ li yàlla bañ Ablaye Wade mu ni maam bi am na ñu ko bëgg défendre ko rek mu bëgg leen def leen ay ministre est-ce que fàttaliku ngeen loolu ah ay nit ñoo dew ci télé bi défendre monument bi ne yoon la war na ko tabax parce que wax Ablaye Wade ni leen ñëw leen ñu ñëw mu ne leen yéen ministre laa leen di def allahu akbar bëgg leen kon ku bëgg yàlla bëgg yonent yàlla lu mu lay def fekkee nit nga bëgg rek nit nga bëgg mu jël alalam yépp jox la lu nekk mu yéene la ko jox la lu tax ndax damaa bëgg diw nga mu jël lépp jox la léegi nag yow nga ni man damaa bëgg yàlla damaa bëgg yonent su dëggoo lan ngay am wala ñu ne woon dañoo bëgg yàlla wala ñu ne woon dañoo bëgg yonent lan lañ am saxaaba bu mat dafa jeex jekki tànk jekki-jekki di jeex ci kanamu yonent bi jeex yonent bi ne ko diw lan la xaaris lan la mu ne ko yonent damaa xam ne man yow rek laa bëgg mënuma toog te duma la gis te yow mal xiyaam boo duggee aljanna man ma dugg aljanna sax xam naa ne ci aljanna yu kaw yi ngay nekk man ma nekk suuf du ma la gis te man mënumaa toog gisuma la lan la aaya bi wàcc yooyu ne almaru maa man ahabba wa man yuti illah wa rasulahu fa ulaika maa allazina anama allahu alayhim min annabiyin wa siddiqin wa suhda wa saalihin wa hasuna ulaika rafiqa ku bëgg yàlla bëgg yonent ëllëg yowmal qiyaam boo toppee yàlla topp yonent yàlla na la booleeg nit ñu baax ñi ñan la la yàlla booleel première catégorie ah yonent yi allahu akbar après ñi dëgg ci yoonu yàlla ak ñan shuhada ñi ñu rey ci yoonu yàlla ak ñan nit ñu baax ñi ñooñu ñooy xa ngay xaritoo ëllëg yowmal qiyaam lan moo la yóbbu foofu ndax say julli moo la fa yóbbu ndax koor moo la fa yóbbu ndax joxe azaka moo la fa yóbbu ndax aji màkk moo la fa yóbbu déedéet lan moo fa la fa yóbbu da nga leen a bëgg rek nga fekk leen yàlla yéegal la ba nga yegg foofu kon nan bëgg ñu baax ñi waaw al mar'u ma'a man ahabba koo bëgg yowmal xiyaam ànd ak moom waaw nañ xool kon suñu xol yi ñan lañ ciy bëgg kon mbokk yi ñu yemal fi dars bi insha allah ba talaata bii di ñëwaat ñu ngi jéggulu suñu borom njuum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk mi ñu lay ñaanal yi yàlla yàlla jazakallahu xayran jërëjëf